yaay wa woon ba xam ne day de day def ko neex hmm. salaamaaleykum maaleykum salaam mu ngi waaw ngi leen di nuyu xam ah, ah, nga yaakaaroon naa ni dinaa tardé sax ah? ndax maa ngi soog a jógee Tamba ni <laughs> maa yaakaaroon ni dinaa tardé <laughs> na ngeen ana waa Tamba. nga fa. dégg nga waxtaan wi ñu doon waxtaan léegi Tamba ñoo ci yoon bi nee na boobu du thème bu Tamba de <laughs> thème bi fekkee naa xuloo ba ca Ganjaay Fatou Tamba na ngeen def mbaa yéen a ngi ci jàmm. ñu ngi sant yàlla bu baax yàlla na jàmm yàgg. amiin yow ñu ngi lay ñaanal jàmm yow it. mbay dafa fay de dafa dafa fay de kan. waay ku fay fan laa fayee yow de maa fay. Ah. maa ngi def buzz parcelle bu baax sax macha allah maa ngi yëngal parcelle waa Mbaye. Hmm? Euh, danoo gis gis nga insécurité bi am fi nga hmm. moom moo di sunum réew. te ki nga xam ne rek moom moo di ministre bi wax ci dem bi muy wax fi nga xam ne rek. moo di ci assemblée noo ko gisee. Euh, dama xam ni kaaraange amatul. kaaraange sécurité. Mhm. amatul. wallaay amatul. gis nga soxna si. Mhm. Euh, ministre de l'intérieur dañ koy xam. Mhm. surtout anticiper. waaw xam ni nga xam ni noonu ngay def ba xeex bi du am. xam nga xeex am. nga daal di fexe ba affaire ba arrêté taxut ñuy wax ministre de l'intérieur mhm. dangay fexe ba xeex du am bi ma nekkee ministre de l'intérieur waaw ci laa xam yu bëree bari yow fu ne lii bu doon yow nan ngay def bu doon man la laataan lamb ji di am mhm. pour bañ a xam damay xool Papa mhm. ma xool ni parcelle la ak phase la boole violence jamagen sita laal piki nag yooyu yëpp. violence. yow yaay nandite nag. avant ñuy signé contrat bi laa naan lamb ji du am bu ko defee violence ba du am. du am. ndaxte gouverner c'est prévoir naan eh. da ah. woo promoteur bi Pape Abdou Fall ne ko sa lamb ji mënut a nekk mu ne la lu tax nga de ko kaaraange gi amuñu ko. dëgg la ndaxte jamagen sita ak mm-hmm. ñamu àndal. Mm-hmm. parcelle Papa Sow ak ñamu àndal. lamb ji mun naa nekk te am na beneen. bo beneen comme nan. Modou Lo Ama dëgg la warta ndax lan warta am. bu ma nekkoon ministre de l'intérieur damay woo promoteur bi. waaw ñu ko lan ne ko lamb ji mun a nekk. parcelle Modou ak ña ko topp. Ama Baldé Pikine. ak ña ko topp lamb ji warta am. laay dëgg la dëgg la dëgg la. loolu mooy ministre de l'intérieur. moom da cee waxul sax nag. avant danger. ngay fexe ba danger lu am. dëgg la. Bombardier. Mhm. ak ki nga xam ne mooy bala Gaye mun naa nekk. ba ma jee benn kaar lay indi. <laughs> ay e bàyyi la ngay e eh, am na am na am na am na am na ay ay supporter ñoo fay nekk di tàccu kan la ñuy xeexa loolu jam daf fay am Bombardier day bëri bu daanee nga fexeek encadré kaar ba benn kaar bi leen ci ba mu ñibbi Balla Gaye bu daanee nga bàyyi leen ñu tàccu ñibbi <laughs> lamb jooju mun naa ne. yow isa xam nga ne Bombardier dina la mere de. Hmm? Bombardier waa 11 novembre ak coose wees ak sant su ñëpp dañ koy topp. ak sóoru baax yi. Hmm. Bombardier bu daanee bu demee fële day xumb waaye waa Mbour duñu paas ñëw benn kaar benn kaar. da bëgg a Bombardier dadul joxe dadul joxe dadul joxe dadul joxe. waa Mbour yi ci seen jëm yi bopp ñoo dul ñëw. ah d'accord benn kaar. waaye léegi nag ma laaj la dara nag mbay mm-hmm. yow ni nga jegee président Macky Sall. Mm-hmm. léegi dañoo bëggoon nga xam ñu xam ñu kañ kañ la teer bi di daw. <laughs> ak ni nga ko jegee nii. teer bi mënatu la daw yàqu na nañ ko. yàq ñu daal dañ ko xaañ nii rek nag. dañ bi kon bi. Euh, teer bi nañ teer bi comme bi ni mu demee noonu combat bi ni mu arrêté noonu la teer bi arrêté. Mm-hmm. bi mënatu la daw. kii lu muy def nii. fii <laughs> la fii la naa yow jël bi ubbi kii leen large. muy def. est-ce que ah. doon présenté. ça ça nag. ah lu leen léegi. émission bi kon. Mbaye Ndiaye bul yàq bul yàq suñu plateau Mbaye. Mbaye bul yàq suñu plateau. léegi Mbaye nga ni teer bi. teer bi daal dootul am nga ne teer bi a dem. wax rek li tax nag du daal wax dëgg yàlla wax nga nag. information eh, yan information nga xam bu ñu jàppee date ban information ban date waaye ma ne date ah. yi daal en tout cas daal wax dëgg fa yàlla xamuñu ci dara président Macky Sall keroog xool na fa ci yàgg xool teer bi daal di gagné Dubaï bi ndax nañ ndax ah. teer bi moom sax xamuñ ci dara. xamatuñ ci dara. kon ne xamoo ci ban date yàlla rek a xam. Ah. teer bi waaw dawam du yombee Euh, démb nag euh, bi nu gisee ministre bi mu taxaw lu ne wax nañ ko kon nag ndeysaan mhm. bu fekkoon yow la nag yaa taxaw ca place boobu Félix bi ko bi mu waaw waaw xam nga moom dafa xamut mhm. moo tax te defu du toog ak ñi xam dëgg la su ma doon laaj mhm. combat lam lam nawetaanu tëngeej bi ñaari équipe yooyu waaw du am warta kon yow dara du am du am <laughs> lenn du am waa tëngeej da leen di boole ñuy nawetaan ak waa géejawaay ñuy daje Pikine yaa ngi def xeex du fa Tëngéej ak kii dér bi amu fa. dëgg la bu ko defee ñuy dajee Pikine. Mhm. bu kii gañee ñibbi dee bu kii gañee ñibbi dee. wallaay li nga wax nag dëgg la. yow da nga aay nag loolu mooy. erreur loolu mooy adduna. kii ñëwaati euh. <laughs> wax dëgg yàlla mbay ah. euh, euh, ajaratu kenn ko yow nga kii na de seen des na deux minutes des na deux minutes jeexagul Euh, léegi yow. ñun kat Aïssa Diop Mbaye li ah, Mbaye gis nga président nag ni mu def ni ma def nag waa kii. Hmm? Ah, ah? ni mu def ci kii bi euh, feebar bi xew. omicron comme ni ko Sa Ndiogou doon bi am ni mu ci wax ni mu amaat waaw waaw wax na dëgg bi mu ko waxee médecin yi arrière nañ nee nañ zéro cas non non comme yow yaa yow comme yow da ngay am information yi kenn dul am est-ce que indiwuñ ko gis gis ni askan wi hmm. résister nañ ne gëmuñu feebar bi rek. Macky Macky Macky def communiqué. ah léegi ku indi feebar bi. ah ña ña ko annoncé. yow mi est-ce que indi wuñ ko. parce que <laughs> feebar kon yow feebar bi dañ ko indee xam ne loolu. mais feebar bi yow mi xam loolu nag yow war nañoo wax ak yow. mais feebar bi war yow mi lañ war a yow mi lañ war a feebar bi ay docteur di xëccoo ay docteur di xëccoo daal maa ko njëkk a feebar. mbay temps bi jeex na merci waay jërëjëf xanaa mu naan feebar bi est-ce que indi wuñ ko delloo ko. Eh, xanaa boobu ñëwee lay doog a wax ni indi euh, du ci nuyu ñëpp li nga xam non saa yàq na ma nag. auditeurs yi nga xam ne rek moo di waa Thiès euh, kaay benn dëkk ñaari gaar. xam nga yow ci ñoom nga dëkk. macha allah dinaa la jekku dem leen rek. xanaa man <laughs> di ci nuyu sëñ Moustapha Sall lu bëree bëri sëñ Mata Jabel Mata ak sëñ Cheikh Sall. di ki nga xam ne rek moom moo di Anna Dramé ci euh, maamam bi nga xam ne rek dafa gaañu donc di ko di ñaanal papam bi nga xam ne Dramé Kañ soo si nit ku baax la yàlla na la juddoo jàmm ak salaam sa yaay jilee donc bu ñu jógee foofu dañ dañ koy dalal ko nga xam ne rek moom moo di Idrissa Seck waaw di sant yàlla di julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di dellu di rafetlu jotaay bi di wax ni am nañ ci mbégte mhm. ginnaaw biñ ci amee kontaante mhm. ndaxte teew ci béréb yu ni mel yombul dëgg dañ sax nag kon teewaay bi danaa ci am solo mhm. ak leen di sant di leen gërëm voilà Euh, da nga fee gëj nag. <laughs> dëgg la xaw naa allah. dëgg euh, xam nga man sa sa waxtaan daf may neex. Mm-hmm. parce que mat gi nga ciy ñëwee. ak mm-hmm. na nga ciy toogee wax ci fulla mm-hmm. fayda. donc looloo ma ci ñor. macha euh, allah waa Idi. xam nga ni président Macky Sall dootul amati jot. ndax dañ ko jox li nga xam ne rek moom moo di président Union africaine. waaw waaw waaw waaw xanaa di ko félicité. di ko wax ni ko. tabb nañ ku ñu war a tabb ndaxte koo xam ni suñ borom may na ko xam-xam bi ak dal mhm. waaye nag yore président union africaine dafa xaw a jafe mhm. ndaxte dootut am jot mhm. dootul jot moom parce que moo tax ñu mel ni man jege ko day am solo ah. ngir mu dénkuñu réew mi waxuma <laughs> réew mi wala parti réew mi maay ma maa wax soxna si. ñëwal. ginnaaw dafa am loo xam ne dañ ko cee bëgg a aw. teel ko ko ngir mu mën a am ndam ca Afrique. Ah. ñu koy wax rek ne mën nañu koo teel santé. teel ko it éducation ak sécurité. <laughs> agriculture teel ko agriculture ak élevage. kon ça veut dire que koy président bi na la ko jox rek. jàppal ko it li nga xamante ni bii moom la ñuy wax. maanaam daal tooginu njiitu décision yeeg dogal yi ñu jox attribué ñu ko ñu mel ni daal dañ koy nuru nurun waaye duñu ko doon dëgg la njiitu réew waaye du mm-hmm. doon ñun maanaam xalaatam yépp ñu fas yéene ko jëfe bu ko defee mën na féete sax moom ci biti Afrique wàccee ma pale ah! <coughs> waaye nekkaluma fa lu dut moom bu ko defee nga xam ni mën na taamu ci yeneen dëkk yi nga xam ni day mëna lijjanti mbirum Afrique dootut am jot diggante coowal Ghana ak yi nga xam ni mooy Mali jàpp la jëm ca Burkina Faso rëb ki yaag fële ca Nigéria yooyu bu ah, koy lijjanti xam nga yooyu ay problème yu am solo la mm-hmm. jamono jooju fekk ma nit may jënti njàng meek di waxak ak ñi nga xam ni ñooy wàllu wér gi yaram beeg sécurité ak di wax ak élevage ak di wax ak agriculture ak ñooña ak mi nga xam ne ñooy sëriñ seek yooyu yëpp doon mi nga xam ne mooy sama yaay président Idrissa Seck dama koy nuru waaye du doon man mais premier ministre est-ce que ah? premier ministre dama koy nuru yow tamit yow tamit eh, kii ah, ah, yow tamit loolu du président yow yow daf may def rek président par intérim waaye du ko tuddee président da koy tuddee président waaye du doon daan. ah président doon président li mu wax Omar dégg nga li mu wax ah, Omar bu ko defee daan ja mu téye ko. waaw Omar nee na. Mhm. Euh, moom président Macky bu xasee ba dem. Mhm. na jël lépp moom jox ko ko. Mhm. bu ko defee sécurité bi moom moo ko yor. lépp moom moo ko yor na ko. waaw donc ah li ma xam ne li mu lay wax nii dafa ah, metti mbasa ginte. cere ak ndawal. ginte. cere ak ndawal. ku la ko ñamal cere ak ku la ko ñamal. nag caaxaankat bu mag nga. donc ku ñëw ci sa plateau. caaxaan non du loolu dalaa delloo ngéwal rek. ngéwal sa caaxaankat ay ginte. rek dawal ba ci plateau. la kii tamit may wax journal naan ku la ko mosal ku la ko ñor. ku la ko caaxaankat bu mag a ngi daan ku la ko ñamal. léegi nag ak conseil économique et social lépp lépp cher nag. mais mi cher na nga nekk fa. yow du ma commerçant. mais ni mu seeree nag wax meew mu seer man ak ñëpp a ci yam damay jënd ñi ñëpp. te nga jiite leen yow mii da ngaa yokk affaire de yow boo nekkee yow boo nekkee président dina am pro di nga problème de. <laughs> mu ne maa leen jiite. yaa nekk yaa ne yaa gar gardaajo ministère yëpp kay. commerce wax nañu ko non moom daf ko proposé. kii wagul de ah, yàqalagul ko. yàqal nañ ko yàqal. ah yàqalagul ko laaj waxuma ko jeexul. Ah, reetaan. Eh, dese nga 4 minutes. 4 minutes. yow man sax damaa yàgg dama ko yéex a def Omar laaj ko bis. laaj bi kay moom <laughs> laaj ko. laaj ma non <laughs> non laaj. di ma laaj. du ma la laaj. ah kañ. dara laa du laaj. laaj ma du ma la laaj. Omar wax na lu ay di njàmbe tam ba géex. waxal sa nepaat loolu la ñëpp di déglu. lii yow rek la ñuy déglu. benn question gis nga day fay yow sànq ba nga jógee dem sa yoon. <laughs> benn question. one question plateau bi de ku fi de yàlla la jàmm di dal. Ah. ñaar ñii daamal Kajoor temps yi nag am na ko am buzz Thiès te yow yaa fa gënoon a am buzz. doo nit. muy Ablaye Dieye. Ablaye Ablaye Dieye muy waay waay dafa laa teel a tagg. non Ablaye Dieye. ah Koba Diattara. non Ablaye Dieng Ablaye Dieng nga fa Ablaye Dieng nga fa ak. ay Koba Diattara. yow ak ay waay. amuñu ko amuñu ko amuñu ko xamuñu ko xamuñu ko xamuñu ko xamuñu ko xamuñu ko xamuñu ko xamuñu ko bàyyi di dem teel sàmm xayal raas raas. bu ñu forcé ku ñu xamul xamuñu ko bu ñu forcé ku ñu xamul. ndax xamuñu ko yaay kan xamuñu ko. ñun émission bi duñ ci leble duñ ci fay bor. waaw sur la Ablaye Ndiaye ma bu forcé ku nu xam amul benn promotion na tëb tëb naan Ablaye Ndiaye koo xam ni kenn xamu ko dégg nga nga bugg koo ñëw ma ma ne yow yaa mën a tappale su man Ablaye Dieng boobu sax moom a génne plateau. waaw génn parce ko vraiment man man. dëgg la Ablaye Ablaye Dieng kenn xamu ko kenn xamu ko may ma ma tëj xamuñu ko. jóge fii xaw ma nu Ablaye Ablaye mu naan ñu Ablaye Dieng ñun xamuñu ko bu ma génne ñëw Walf xamuñu ko voilà ñoo ko wax. ñoo ko wax te dund jaajëfal nañu leen bu baax a baax mi ngi noonu partie comédie bi la woon mu doon sukka Mbaye daanee ak Alaaji Sa Ndiogou Mbengue ak seen i gan ñu jaajafal leen bu baax a baax ñu remercier nag waa Kaki Kër Marie Marie borom mbuur ñu ngi lay remercier ak Soukay Mbaye Soukay merci beaucoup Modou Fall ñu ngi lay nuyu chéri Astou di la seet noo def di la ñaanal jàmm bu baax a baax Modou Fall technicien waaye di